Euh, monsieur le président maa ngi lay nuyu monsieur le ministre de économique euh, de la coopération maa ngi lay nuyu di nuyu sa naatago ministre bi nga nekkal di nuyu aussi sa collaborateur yi nga àndal yëpp am na nag loo xamante ni waxoon nañ ko ci commission bi tey dañuy ñëw rek pour bëggaat ay confirmation ak ay engagement yoo xamante danga ko jël dans le public ak député yi tey monsieur ministre fi may tàmbalee yow chaque jour que ñu ngi bàkkoo la croissance mais croissance damay laaj peuple bi croissance boo xam ni benn banque nga am muy BND BND croissance boo xam ni banque yi fi nekk yëpp étranger ñoo ko moom mu français yi croissance boo xam ni Auchan français yi ñoo ko moom Carrefour ñu ngi bëgg ñëw Orange ñoo ko moom moom Eiffage autoroute bi yëpp nga jël ko jox ko ay étranger léegi croissance boobu ñoon dafay bitim réew la wala pour sénégalais la ndax jàpp naa ni tey am na si yu baree bari yoo xamante ni boo toogee si ministère bi nga xamante depuis 86 si li ma xam ministre économique ak finance ñoo daa ànd président la république Macky sàll xëy na am na loo xamante ni moom gis na ko moo tax mu xàjjale ko mais monsieur le ministre coopération centration bi nga yoree li ma lay digal daal bokk na ci mooy français ak américain du ñoo suqali Sénégal France ak Amérique du ñoo suqali Sénégal ndax am na ay ressources yoo xamante ni yaakaar naa ni yéen a ko doon wax ci loo xamante ni amoon na ak France 7000 milliards yoo xamante ni waxoon ngeen ni amoon ngeen ko accord ak France mais 7000 milliards yooyu dafa nekk loo xamante ni ay chiffres la woon wala da ngeen koo porte pour mu ñëw Sénégal wala kan lañu mën a ñëw ci réew mi. te yaakaar naa ni pour ngeen am coopération bu baax pour ngeen am mën a liggéey pour réew mi am économiquement fi Ablaye Wade dekkoon man bu ma doon yéen fa dellu muy damay seeti assiette gi dem Inde dem seet yéen wi nga xamante ni ay réew yoo xamante ni tey amoon ñoom ak ñoom ay ay diggante yu rafet du ñu xoj ka da ngeen def lii wala ñu def lii yaakaar naa ni su boobaa li ngeen bëgg dangeen ko am monsieur le ministre jàpp naa ni bu fekkee am ngeen ay bànqaas yu nekk ci yéen di liggéey. war nga leen dooleel bànqaas yooyu noonu yokk seen doole ngir li ñuy def askan wi mën ko gis boo si jëlee ku si mel ni FONSIS bi ñu koy créé président de la république dafa waxoon dañuy jël benn somme de 500 milliards def ko fi monsieur le ministre ndax FONSIS 500 milliards président de la république waxee woon ni dañ koy def capital pour que muy dimbale askan wi di dimbale entreprise yi est-ce que def nañ ko defuñu ko ndax li mu def misaal rek tey joono yi nga xam amoon na ko au niveau de Touba ku ne xam na ni tey bi ñu jàqee. FONSIS moo ñëw ci hôpital Matlaboul Fawzeyni projet 7 milliards mu nekk maanaam loo xamante ni 125 lim lay doon nekk 7 étages am deux blocs yaakaar naa ne kooku bu ñu ko dooleelee li mu ko def Touba war koo def Mbour dana ko def feeñ su boobaa liggéey président de la République dana feeñ mais koo xam ne yaa ngi bëgg a def te amooy moyen nag jàpp naa ni pour sa def dana yomb kon monsieur le directeur de de de budget il faut que ngeen dooleel FONSIS ndax ndigalu président de la république la woon te loolu muy def ñun Touba gi nga xamante nii day fa lañ dëkk gis nañ suñu bopp c'est la première fois ñu mën a wax ni président Macky Sall teg si bët ni moo fi def lii mu jóge ci fonds kooku nag yaakaar naa ni ñun bu ñu ko waxul dañoo goree di ndax gis nañu ko te tàmbal na ko te vingt mois lay dire balaa màggal gi ñëwaat dana àgg monsieur le ministre li am solo booy boo toogee di wax damay danga may danga may danga may jox Abdoul Mbaye Abdoul Mbaye nga may jox neexu tubaab mais monsieur le ministre neexu tubaab indiwul xaalis ci réew mi il faut que nga xam loolu il faut que nga dem wuti xaalis xaalis yaay gën dem wuti ko bu ko defee maanaam ministre des jàppale la ministre ak diplomatie nga dem wuti xaalis réew mi dañoo soxla xaalis fi réew mi dafa woo kon koo gis mi ngi mer amuñu dara kon kooku nag yow yaa war a wuti xaalis bu fekkente nag mun la wuti xaalis ñu jëlaal ko delloo ko si ministre bi nga mooy Je remercie la parole à notre collègue Awanyang. Ensuite... Les collaborateurs du ministre, chers collègues, Monsieur le ministre, euh, je voudrais vous interpeller sur la politique économique euh, du gouvernement. Et je félicite euh, le président de la République qui a pris de nombreuses initiatives, qui a trouvé des fonds Mais je suis un peu inquiet, très inquiet. DER financement boobu fan mooy destination moi je suis le président de la chambre de commerce d'industrie d'agriculture de Diourbel élu par les opérateurs économiques mais je suis un homme politique un milliard et quelques lañ def ci région Diourbel ñu ma jege de demandé nañu mais kenn amu ci parce que il faut que qu'on qu'on dise les choses claires mënee su la jox benn directeur u DER mu dem tëju ak ñetti nit ñu def seeni liste jox leen xaalisu askan ba pare ni kenn du ko wax parce que man ñu ma jege dañoo demande ñu isoler leen génne leen qui l'a fait c'est une question ça je l'ai dit à Amadou Ba il était ministre des finances de parler au directeur ki a fait notre région nit ñi yëpp euh, teertu ko ma de toute façon bu ñu dee dañuy exclure peut-être ay nit je ne sais pas boobu problème il faut que mu leer beneen bi c'est les chinois mais Chine dama fay dem Guangzhou jënd feneen chinois benn ñem ab sénégalais mënul dem naan fii day créer ñu bàyyi chinois yi ñu ñëw Sénégal mais dem ba Touba ñun gerte la ñuy dundee ñu indi seen xaalis jëli magasin di jënd di yóbbu ak dugg ci àll bi mais gone yi doon dund ci loolu lu ñuy dund lan la ñuy dundee c'est des problèmes man gerte moo ma may lu ma am ci gerte laa ko am jënd gerte yenu naa sax diggante maabo joli ay saaku sarge ko jënd ay oto sonaga ànd ak ay nit di ko def ñun ñu mën a jënd gerte ñuy dem di leb ñun xaalis cent millions yi ma mujj a leb ACEP laa ko lebee 12 pour cent la ñu may teg wax naa ko waa BCEAO demande le président de la république ngeen am ay fonds yéen jox ko gone yoo xam seen poche lañ koy def mais les 39 milliards laa ñi ñu ko jox dañu dul fay parce que kii xaritu kii la xaritu kii la madame diw diw ñu woo leen ñu jox leen xaalis bi ñu dem lekk ko ni duñu fay c'est trop facile il faut arrêter ces choses vraiment je suis au regret de le dire Et je profite de l'occasion, Monsieur le ministre, je représente le Parlement de la CEDEAO. Un journaliste a accusé le secrétaire général du Parlement et la directrice qui est gambienne d'avoir fait des fausses facturations. C'est extrêmement grave ce qui se passe dans ce pays. Le président a prôné la bonne gouvernance et je défie quiconque. Je ne serai jamais un voleur ni un falsificateur, ni quelqu'un qui fait des fausses factures. Je le dis, je défie quiconque. Celui qui a quelque chose à publier sur moi, il n'a qu'à le faire, ici et ailleurs. Et demain fera jour. Le Parlement est en train d'être audité sur ma demande. Ce que j'ai fait, les Sénégalais n'ont qu'à le faire. J'ai demandé que la commission de l'administration, des finances, du budget et de l'audit puisse auditer ma gestion. Il y avait un premier audit qui a donné, et je vais le redire, une motion de satisfaction. J'ai été félicité par l'auditeur général des institutions de la CDAO. Je parle sur une tribune. Les Sénégalais devraient être fiers de moi, de ma gestion, la gestion la plus sobre, vertueuse au nom du Sénégal. J'ai été félicité par les députés qui m'ont accompagné. C'est le lieu de féliciter le président de l'Assemblée nationale à qui nous avons transmis la lettre et le président de la République pour leur dire combien nous sommes satisfaits. Quand on est Sénégalais, dañu war a nekk Sénégalais bu am jom bu dëggu boo xam ne doo tappale doo nekk ci ay deal moi je ne suis pas dans les deals je ne serai jamais dans des deals je suis un Sénégalais honnête partout où je suis passé je sors comme je suis entré, le cœur ouvert, parce que je crois que j'ai fait ce que je devais faire. Merci. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les collaborateurs du ministre, chers collègues, euh, monsieur le ministre, félicité woon nañ la en commission waxoon nañ la aussi ni le département bi ñu la jox apprécier nañ ko parce que rek dafa am yoo xam ne dañu bëgg spécifiquement ñu jëlal ñu ko en charge euh, monsieur ministre. dama la bëggoon fàttali euh, jotuma la ko woon wax accompagnement te collectivités territoriales yi dans le cadre de la coopération décentralisée certaines euh, collectivités euh, fexe nañu ba am ay relations am ay partenariat nord sud bien sûr mais amuñu accompagnement amuñu accompagnement et généralement je parle par expérience ñoom les partenaires dañu soxla un accompagnement institutionnel. Je voudrais savoir comment le gouvernement, euh, quelles bu vous pour effectivement accompagner les collectivités territoriales ci seen coopération décentralisée. Euh, monsieur le ministre te loolu dafay indi itam li ma la waxoon ci PME yi ak PMI yi wax naa la la RSE est devenue obsolète à partir de ce moment je pense que dans les partenariats ak autorisation yi ngeen di jox à des promoteurs étrangers pour ñuy ñëw di investir di utiliser sunu foncier di jël le foncier des collectivités territoriales ngeen intégrer les PMI et les PME pour que ñu mën ci bénéficier au maximum je n'ai pas besoin je les je les avais énumérés j'avais parlé de transfert de technologie j'avais parlé de participation dans le capital mais en tout cas ñu ñu sentir ni que les PMI et les PME yoo xam ne ñu ngi ci biir collectivité yi ñoom itam mën a bénéficier véritablement te loolu dina résorber lu bëri ci euh, demande d'emploi yi euh, monsieur le ministre euh, nag dafa am lu ma laajte woon démb ministre yi ma tontu muy le ministre des finances ak le ministre chargé de l'équité territoriale wax nañ tontu wax nañ ma mais véritablement wax nañ ma aussi et apprécier naa ko que amaguñu évaluation PAP un bi te man dama jàpp ne comme que yéen a ngi en plein ci PAP 2 bi jàpp naa ne war ngeen am évaluation bi te loolu nag tam moo soxla moo taxoon sax justement ñun ñu soxla effectivement sa ministère bi donc ñu ngi xaar évaluation boobu parce que jàpp nañ ni ba la ñuy dugg ci PAP 2 bi waroon nañu am une évaluation boo xam ni dinañu permettre ñu def une formulation intelligente effectivement du du du PAP donc ñu ngi ko ñu ngi koy xaar monsieur le ministre nag man euh, dama la bëggoon a euh, étude d'impact bi aussi laajoon naa leen ko étude d'impact yi je pense que projet yi ñuy def yëpp war na laaj étude d'impact enfin dama bëggoon dafa am discussion bu ñuy faral di am surtout maak sama càmmiñ Mamadou Lamine Diallo ci euh, indice de pauvreté monsieur le ministre man dama dégg ñu bëri naan revenu par tête d'habitant pour effectivement expliquer l'état de pauvreté man monsieur le ministre d'accorduma ci man li ma d'accord mooy accès aux services sociaux de base li may d'accord mooy création de richesse li ma d'accord mooy enrichir les familles li ma d'accord enfin mooy fixer ceux qui sont en âge de travailler dans les localités freiner l'exode rural xale yu góor yi am xaalis takk ci jànq ji toog ci dëkk bi dëkk bi naat je vous remercie